asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati sunu kàddu yu nuyoo ak ziar di ko jëme ci Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp ci toolub lislaam man ko liggéey te nu ko ak moom di yëkkati sunu ziar di ko jëme ci borom barab bi la kilifa gi nga xam ne moo tax barab bi am. ñu di ko teg ci loxol sëriñ Murtada moom Cheikh Saalih ak sëriñ Abdul Qadir ñu àggaleel ñu ko ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom Cheikh Saalih ak mboolem njabootu Cheikh Saalih di leen siyaare bu baax di siyaare sëriñ Saalih moom Cheikh Mahamadou Murtada bi nga xam ne moom lañ fekk ci jataay bi ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk di am mbégte mu rëy ci teew ci barab bii ngir anam yu baree baree bari yoo xam ne xëy na mëne su ko leeral fi may tàmbalee rek mooy fi sëriñ bi wax léegi tudd Rawdu Rayaahiin Rawdu Rayaahiin sampub Cheikh Saalihu la tur wi ci boppam Cheikh Saalihu boo ko joxe ndigalam moo taxawal liggéey bi mbind ma nga xam ne ca bindoon tur wi ba tey mi ngi nu denc di ko barkeeloo nett lu ñu itam xissa ba nga xam ne moo taxoon tur woowu am wax ne barab la bu sëriñ bi defoon ci njaareem yóbbu woon fa ay nit tudd ci Cheikh Mahamadul Moustapha Cheikh Mahamadul Fadil ak ñeneen wax ne daf leen a waxoon ne damay sàkku mbooloo moo xam ne wala jiw woo xam ne ëllëg buñ bëggee tilimal sama yoon bi ci wàllu xam-xam saabo safa saabo laa fay sàkku sàkku boo xam ne ëllëg ku bëgg gàkkal sama yoon bi ci wàllu xam-xam saabu boobee moo koy fët ba mu set kon tey raw Rawdu Rayaahiin mën nañu wax ne Rawdu Rayaahiin bu Cheikh Saalihu Mbàkke la kon ni mu yilife barab bii noonu la yilife mbooloo mi kon ñi ngi am mbégte lool ci jottali cant googu ak ziar boobu ak ñaan boobu jëmee ko ci njabootu Cheikh Salih di am mbégte mu dee itam ci toog ci jataay bi ngir waxtaane xam-xam waxtaane jàng waxtaane yar ndax dëkk bi borom bi daf ko borom Cheikhul Khadim radiyallahu anhu daf ko sañcoon ngir defar nit ñi ngir yar leen ngir jàngal leen ngir tabax fi nit koo xam ne day texe àdduna texe àllaaxira mu doon itam misaal moo xam ne yeneen i dëkk yu bari daf ci soppi ko soqi ko daj réew mi waaye daj àdduna bi ñaan sunu borom def ko muy dëkkub xam-xam di dëkkub jàng di dëkkub xalaat wa jaxlahu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana al irshaadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhim kon buñ toogee ci Touba toog ci dëkk bu barab bu tel tedd bi la di waxtaane xam-xam kon ñi ngi waxtaane liggéeyub Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waxtaan wi mën naa yaatu lool waaye mën naa gàtt bu nu joxee misaal ci Cheikh Saalihu mu doy sëkk ci yar ci defar nit ci jàngale ci liggéey njabootu sëriñ bi itam kuñ ci tudd ku nekk rek mën nañ cee joxe misaal sëriñ bi wax na léegi ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi li nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indi woon mu demoon ba mel ne lu xaw a loof mu yeesalaat ko te loolu ci njëlbeen ga la ko wax ne dama fas yéene rek leeral sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci ay barab yu bare bare bare bare bare bil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa indi ahmadu yar ci aw nit na ko sa na ko sallallahu alayhi wa indi woon saxaaba yi def topp topp ci téye ko taabeex yi di topp ci sëriñ bi ba mu yegsee ci moom moom itam mu yar ci ñi nga xam ne ñoo gàddaayoon fekk si ko ay bokkam mu yar leen ci ak njabootam mu yar leen ci ñoom itam ñu waraat réew mi di yaatal liggéey boobee ba mu yegsi fii tey loole nag ku fi mas nekkal sëriñ bi rek ci liggéey boobee nga ne njabootam gi nga xam ne itam jotuñu woon a toog toogaayam ñoom ñëpp ci loolu la nekkoon yàlla dogal muy dox ba yegsi ci ni ma ko waxee léegi Cheikh Saalih ñu ko fi wóotu ba yegg ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ngir waxtu gàtt bi kon damay tënk rek joxe misaal ci liggéey bi nga xam ne moo fi nekk tey di liggéeyu Serigne Touba boo xam ne mboolem njabootu Serigne bi ci lañ nekkoon. Cheikh Mouhamadul Mountakha bi mu ñëwee wax ne moom loolu mooy liggéey bi mu bëgg a tàmbalee ab liggéeyam mooy rek li mu fekkoon waajuram ya nekkoon ci te mooy liggéeyub Serigne bi te mooy njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy lim fi fekk mu ñëw moom tàmbalee ci loolu yaatal ko ngir ñëpp mën cee jariñu mu wax ne kon nañ taxawal daara joo xam ne dafay tàmbalee ci ki day kiy dal baasin ba ca njobaxtan la mu dëppoo nag ak nanga xam ne noonu la sëriñ bi doon yare noonu la sëriñ bi doon jàngale noonu la sëriñ bi doon defare waaye mooy li dëppoo ak li lislaam bëgg ak fi jamono toll ak li Sénégal yittewoo loola moo tax nu seddale ko ci daaree alxuraan la tàmbalee daaree alxuraan ku ne xam na ne sëriñ bi moom moom moom alxuraan mooy wéttalam mooy ab xaritam mooy ab soppeem mooy ab doktooram yaa kitaabal karimi anta xabibi wa xalili wa xablu kunta tabibi anta izzi wa mafxari anta jaahi anta kanzi yaa faxra kulli labibi mu ne kon dañ taxawal daari alxuraan joo xam ne ni cheikh saalixu doon yare cheikhuna alxadim doon ko yare cheikh Shuaybu bu doon ko yare mboolem sëriñ njabootu sëriñ bi doon ni jàngale alxuraan nañ dellusiwaat daara jooje mu doon daara joo xam tam dafa bëgg mboolem wuuru njëkk wa ñu àndoon ak sëriñ bi seenu njaboot jiitu ca bu noppee nag ñëpp topp ca ba fépp fu mën a yaatu ci bokki jullit yi ndax daaray sëriñ Touba daaray lislaam la daaray yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu jàng alxuraan di ko mokkal di beqi di bind kaamil nañ ko daan defee ci jamonoy yu njëkk ya teg ci itam njàngu majalis mi nga xam ne boroom xam-xam yi ne fi yëpp mën nañu wax ne njàng moomu lañ jàng waaye nag ñu gën koo tolloo lekk fi jamono toll nga xam ne dañ koy jàng nañ ko doon jàngee jiital téere sëriñ bi jiitey téere yi nga xam ne sëriñ bi doon na digle ñu di ko jàng waaye teg ci ndax xam-xam yoo xam ne jamono soxla na ko jamono laaj na ko dëppale ko jamono ñuy am ay diplôme nga xam ne ku ci génne da nga ci mën a jariñu man cee jariñ ñeneen di jàng itam métier njàngum mecce ndax diggante boobu gis nañ ne gone yi dañuy teel a mokkal alxuraanul karim bu ñu mokkalee alxuraan am na ci ñoo xam ne dañ daan dugg ci njàngee mi nga xam ne moo fi nekk muy njàngum école yi jàngale tubaab ay école yi jàngale arab yooyu sëñ bi wax ne kon loolu nañ ko gën a dooleel gën koo dëgëral kon li may wax dana yomba leeral ndax sëriñ Saalix moom Cheikh Mouhamadul Mourtada mi ngi fi njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha itam xam naa ne danañu fi yow ku wax loolu itam da nga tudd Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma muy système yooyu fi nekkoon nga xam ne dañ doon jàng njàng mu am solo sëriñ bi ne dañ ko dooleel buñ ko dooleelee ñi daan jàng tubaab ñu dugal ci njàngum diine moo xam ne lépp dañ koy jële ci njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu école arab yi fi nekkoon te baax itam ñu dooleel ko muy jàngale lislaam di jàngale làkku arab yi nga xam ne mënuñoo taqale moo taqali koog moom ngir lislaam ni ko Cheikh Saalix waxe woon waaye nag ñu dugal ci njàngum science nga xam ne ëllëg joom itam danañ mën a am métier ci métier yi gën a xarañ loolu bërki démb sëñ Mamor moom Cheikh Mahamadul Murtada def na am na jataay bu mu woote woon di teral ñi nga xam ne ñoo génne ci école yooyu te kawe lool ci mboolem njàng yi am ci réew mi concours yi ñu am ci ay prix yu kawe école yi nga xam ne mooy école yi ëpp solo itam ñu def concours yi ba at ko war caa bu nga xam ne kon liñ doon wax day mel ni tàmbali naa jëmm muy njàng mu am solo ñu sëñ bi dooleel leen nag nga xam ne léegi kon liñ doon wax nag day daal di dugg foofu mooy système éducatif wala manhaj tarbawi islami muridi wala manhaj tarbawi islaami li ko sëriñ bi waxee léegi boo ko waxee doy na ndax sëriñ Tuubaa léppam lislaam la manhaj tarbawi muridi yi boo ko waxee mooy lislaam kon man manhaj tarbawi islaami muridi bu nga xam ne sëriñ bi daf ko bëgg a def ndax li mu wax ne sunu boroom defal na ko jàngukaay boo xam ne bépp xam-xam bu am njariñ dañ ko fay jànge képp ku bëgg a jàng da ngay mën a ñëw jàng si fa xam-xam bu am njëriñ dellu di ko joxewaat feneen bil mustapha lii ba daan xudduusu madrasatan biha yasulul ada wal jahlu wal kabaru baatu madarasa boobu dañ ko tekkee muy manhaj tarbawi wala système ndax buñ ko bëggoon tekkee benn école bu am ay mur nit ñi ñëw di fa jàng dafay xat te mbirum Sëriñ Tuubaa mooy mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa mooy mbirum borom bi subhaanahu wa taala kon système lay doon boo xam ne dañ koy tëral fii ci tubaa Touba gi yëpp àndandoo di ko jëfandikoo waaye kum soob nga mën koo jël yóbbu ko fu la soob nit ki di ci génne man koo jariñoo mu mën a yaatu mën a àgg feneen loolu moo tax loolu itam ñu boole ko ci mooy njàng yi fi nekkoon dañ koo dëgëral yaatal ko ñu am wenn njàngin nga xam ne boo école boo mën a génn ci Touba rek ak njàng moo mën a jàng ba noppee da mën a dem ba ca li ñu tuddee université bu Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne ñëpp université lañu wax tam tudd ko ndax baatu université mooy fépp foo xam ne dañ faa dañ fay jàngee njàng yu wuute yu bari yu am njëriñ ñun Sénégal na xëy na ñoo koy tekkee njàng mu kawe ba waaye mépp mu njàng mu am njëriñ mën nañ ko tudde njàngum université ndax dafay dajale ay njàng yu am njëriñ rawatina nag mu doon système wala mu doon manhaj wala mu doon modèle éducatif bu Cheikh Ahmadul Khadim mi nga xam ne mooy modèle éducatif bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dëkk bi yëpp day am benn njàngeen nga xam ne école bu fi waaye mën a jàngee boo fi jógee danga mën a dem ci mu jàmma bi nii ci complexe bi waaye danga mën a dem itam ci beneen école bu la neex waaye diplôme boo fi jëlee ci dëkk bi itam foo dem ci àdduna bi da ko fay mën a jëfandikoo fu ne bi itam nit ñi dañ fay mën a jóge nag ñëw di jàng si ci daaree Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu moo tax bu ñu nee daaree Cheikhuna al Khadim day daal di ëmb yooyu nga xam ne moom la yëpp. nga xam ne ci biir itam dafay am ay ay lu ñu tuddee ay institut nga xam ne moom ay jàng yu topp ci gën a suuf yu topp ci suufee lay tàmbalee jëm ca kaw. loolu am na ci benn centre de formation professionnelle boo xam ne moom itam bu yaatu lay doon nga xam ne mépp mépp métier moo xam ne nit ki daf koy soxla ñu koy jëfandikoo ci kër yi tàmbale ci wàllu courant ci wàllu li ngeen di def nii. ci wàllu ci wàllu mbay ci wàllu mécanique ci wàllu métallique ba ci wàllu mécanique yi nga xam ne mécanique automobile ak gis nañu oto yu njëkk yi bokku ñoo ak oto yu yees yi dañ fay def foo xam ne dañ fay tàggat ndaw ñi nit ki mën naa mokkal alxuraan te ni ma ko waxee woon buy jàng ci daara ji ñetti at bu ko fi defee dafay mokkal alxuraan mu tegaat ci ñaari at yoo xam ne dafay jàng njàngum diine waaye di beqi di bind kaamil nga xam ne bis buy noppi bay bañ wax ne kii mokkal alxuraan dafa yóbbaale mboolem xam-xami diine yi nga xam ne mënu koo ñàkk ci dundam mboolem téere Cheikhul Xadim yi radiyallahu anhu daf koy jàng da koy mokkal mboolem xam-xami diine yi daf koy yóbbaale nga ne moom bu fa jógee woon ne man damaa bëgg a jàng métier rek day di mën daal di dem moom dugg ci centre de formation professionnelle boobu ne man damaa bëgg a jàng wàllu nu ñuy defaree courant wala damaa bëgg nu ñuy defaree robinet wala nu ñuy defaree oto wala nu ñuy defaree menuiserie yëpp dañ koy jàng ci njàngeen bu xarañ ci diir bu gàtt itam ñooy xam nag ñaata at lañ fa bëgg a def ak ban daraja lañ bëgg a am ci xam-xam boobu waaye ñi nga xam ne dañoo nekk yor seen i atelier yor seen i liggéeyukaay ci dëkk bi nga xam ne dañ ko jàngoon ba mokkal ko di ci yëngu ñoom itam mën nañoo wëlbatiku ñëw ne kat dañoo bëgg a yokkaat suñu xam-xam ñu tuddee renforcement de capacité wala ci ci njàngukaay boobu yi ñëw di fa yokk seen xam ñu ne ajjuma ji am naa ñaari waxtu wala am naa ñetti waxtu yu ma mën ñëw yokkaat ko sama xam-xam ci jàngukaay boobee loolu itam danañ mën a ñëw di ko fa def loolu moo tax am na institut boobu waaye itam am na nag foo xam ne dañ fay jàngale ak murid ñu tudde ko jàngukaayu moom itam al muridiya mahad al mahad al ali li tasawuf wa dirasat al muridiya nga xam ne wàllu tasawuf la jàng ak taalibe naa ne bu boobaa moom fii mooy doon ñi fay jàngale fii la ñu bàyyi ko loolu moom bu koy jàngale maa ngi tudd si am di Xadi Faal di tudd suñu mbokki Baay Faal yi ndax loolu la Sëriñ Tuubaa lañu fay jàngale ak murid ak taalibe te jàpp nañ ne mooy institut bi gën a bari mbooloo ndax nit ñi bëgg nañ koo xam ñu fas yéene nag di ko fa jàngale ci anam gi nga xam ne mooy gi nga xam ne noonu la sëriñ bi doon yare noonu la ñu baax ñi itam doon yare am na fa itam barab boo xam ne dañ fay tàggat nit ñi ngir ëllëg mbindum sëriñ bi ni mu yaatoo te ñëpp war cee jot ñëpp war koo jariñoo ñu di leen ñoom itam ci ay làkk yoo xam ne dañ ko mën di tuxal tuxal mbindum sëriñ bi di ko yaatal ba ñëpp mën koo mën koo jariñoo am na fa itam foo xam ne dañ faa bëgg jàngale wàllum faj ndax ko ne xam ne jamono ji fi mu toll fi mu nekk nii ak euh, tawat jii fi fi jóge bu yàggul wan nanu tolluwaayu jamono wan nañu xat-xati jamono ñu bëgg faa def foo xam ne dañuy tàggat nit ñi ci wàllu wér-gu-yaram nga xam ne moom itam dañuy tàmbalee ci suuf di di di jàng di jëm ca kaw di jàng di jëm ca kaw ba ba ñu àgg ci mën a doon ay docteur mën a doon ay nit ñoo xam ne macha allah dañuy mën a jariñ dëkk bi loolu itam lu am njariñ la loo xam ne ci yoon wu njëkk wi lañ ko bëgg a tàmbali demee ba ca kaw itam nag li ñu tuddee université ci boppam nga xam ne mooy njàng mu kawe mi loola bi ci jiitu mooy kulliyatu dirasatil islamiyya wal lughal arabiyya nga xam ne moom dañuy jàngale l'islam ci ni mu gën a yaatoo waaye nag ni ñu koy jàng ci bitim réew ba nga xam ne ñi fay jànge danañ mën a am ay diplôme lépp lu ñu doon jàng bitim réew ñu mën koo jàng fii waaye di yóbbaale nag njàngum tasawuf nga xam ne mooy njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu di jàngale ak murit di jàngale ak taalibe di jàngale aaday réew mi jàngale borom xam yi nekkoon ci réew mi di jàngale itam taarixu Sénégal ndax nu xam suñu bopp ndax gis nañ ñu bari danañ xam lool bitim réew waaye léeg-léeg xam seen bopp wala xam biir réew mi daf leen di xaw a manqué loolu itam kii bu am solo la boo xam ne des na ko fi jàng mooy kulle dirasatel islamiya wala xal arabiya jàng mu am solo lay doon. am na fi nag ay jàngukaayu métier ni ma ko waxoon tudd naa léegi institut supérieur de sciences et métiers de la médecine waaye day bu ñu nee ba ci kaw nag day am ay UFR UFR yu bari yoo xam ne day am agronomie. day am wàllu mécanique général génie mécanique day am wàllu informatique ak wàllu euh, artisanal li ñu koy tudde wala yooyu waaye transformation ci misaal lu mel ne màggal gi ñu jublu si li nga xam ne des na ko fi lewatal ci ay gàtt ak ay nag kenn xamut nu toll te loolu gis nañ ne der yi daanaka day sànku rek ñu bëgg a wut nag tàggat ay ndaw yoo xam ne dañ leen fi jàngal loolu nu ñu ko mën a wëlbatee ba nga xam ne ëllëg danañ ko mën a jariñoo ci anam nga gën a yaatu ba noppi defal leen fi nag ay liggéeyukaay loolu itam day tax ma dugg ci liggéey bu am solo boo xam ne bokk na ci liggéey suñu jàmbaar ji Cheikh Saliou Mbacké yàlla na ko sunu borom fayal lu ëpp ñaar fukki at wala lu ko jege xalaatoon na fii barab bu ñu tuddee ab zone industrielle nga xam ne kër yi liggéeyukaay yi la ko tuddee woon xoolal ba mu koy xalaat léegi ñu ngi naan ndaw ñi amuñuy xëy ndaw ñu amuñu luñ def waaye moom ba mu ko xalaatee yàgg na nga xam ne bu boobaa mboolem gone dëkk bi waxuma la dëkk bi waaye Sénégal fu la ndaw di jóge si ñëw di xëy wut si fii am xëy loola bañ koy tëral boole woon nañ ci ay centre de formation ci biir nga xam ne nit ki bu ñëwee wax ne man dama bëgg ubbi fii ab unité industrielle lu laaj muy indi jële ndaw fenn di ko indi waaye ci ndaw yi dëkk bi lay xool koo xam ne rek am na kàttanam am xelam bëgg a liggéey ñu yóbbu ko foofa tàggat moo xam lu mu bëgg a liggéey day jël ci gone yi tàggat leen juróom benn weer wala juróom wala at ñu wëlbatiku nekk foofa di fa liggéey waaye bu mu jamaa bi taxawee day gën a gàttanduwaat loola ndax bu boobaa day tax ñiy jànge ci UFR yi université bi ci faculté yi dañuy mën a def li ñuy wax alternance étude alternance xam nañ ne njàng mu moderne yëpp noonu la léegi jàng ci kayit di dem rek li ñu tuddee théorie daanaka amatul fenn léegi li ngay jàng da koy jëfandikoo ngir nga di ko xam nga xam ne boo booy génn rek da ngay daal di li ñuy wax opérationnel da ngay génn tey daal di mën a liggéey suba bu boobaa léegi ñi jàng ci université bi dañuy mën a nekk ci zone industrielle bu Cheikh Saliou Mbacké bi buñ jàngee ca faculté ba ñu wax leen ko ñu mën a dem pratique ko fee geneen xéewal amaat opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal di taalibe Serigne Touba bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkatee liggéey bi dañoo ñëw ànd ak moom ne ko dañ la cee bëgg liggéeyal bëgg nag tobbil sonn bopp aw sas boo xam ne noonu noo la koy defaral ba jébbal la caabi ñu won leen liggéey bi ni mu tëddee yëpp ñu ne sëriñ bi daaray alxuraanul karim ji ñun noo ko sasoo noo la ko fas ne defal te caabi lañ lay jébbal fi mu nekk nii macha allah liggéey ba sori na lool defe naa fekk ñaari fan sax dana am ay bâtiment yu ñu waaye ñoom ñooñu ñëpp ay industriel lañ ku ci nekk am na ay unité de fabrication wala ay unité industrielle yu mu am yoo xam ne bëgg naa ñëw ci dëkk bi bëgg na fi am ab tànk waaye bëgg na nag nekk ci zone industrielle bi nga xam ne moom la Cheikh Saliou Mbacké taxawaloon nga xam ne bu boobaakoon kon gone yi dañuy jàngi waaye ñoom ñoo leen naan lii lañ soxla ñu def rek ay formation yoo xam ne dañuy def rek lu nekk ñu xalaat waaye dañ daan kat barab man bëgg na maa unité ubbi ab usine ndàngam fii wala ndàngam day dëkk bi soxla na ko wala ndàngam réew mi soxla na ko waaye manqué nañ ci nag ay technicien bu boobaa université bi di leen formé ñuy mën di liggéey fii ñi ci des mën a dem liggéey feneen nga xam ne loolu moom dafa mel ne lu nekk rek day nekk waxtoom wala day ñëw ci waxtoom kon jëfi Cheikh Mouhamadul Mountakha ji dafay daal di fekki lëkkaloo ji jokkaloo ji ak liggéey boobu bi nga xam ne mooy yéene doon mébétub Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu bokk ci itam njariñ li nga xam ne daf ko nar a amal dëkk bi mooy macha allah Sénégal yàlla daf leen a may aw ay ndaw ndaw ñoo xam ne nag dañoo am xarañ lool am xel am xam yomba jox xam-xam kon bu ñu jógee tàggat leen li war ci ñoom ñu def ko dañuy tàmbalee ñoom daal di jariñ dëkk bi waaye dañuy daal di jariñ Sénégal jariñ réew mi te sëriñ bi ñun na ko fi léegi mu tasawu fóot dañoo wax ne ñetti yëf moo tax borom bi subhaanahu wa taala indi ñu ci suuf muy ngir ñu wuutu ko ci kaw suuf nekk ay représentant beneen bi mooy ngir ñu jaamu yàlla ñetteel bi mooy ñu dundal suuf waaye bu ci nekk nag ci xam-xam lay tàmbalee bi mu nu bëggee bind dafa mel ne dafa wax ak malaayka yi ne leen damay bind ñoo xam ne ñoo may wutu ci kaw suuf ñu ne ko xanaa boobaa ñun lay doon ndax nun ay bindeef lañ yoo xam ne sa ndigal rek la ñuy jëfee loolu def loolu la ñuy def duñ loo duñ duñ def sax loo ñuy tere mu ne leen nag man maa xam lu ngeen xam daal di bind sunu maam Aadama waaye ba nga ko bindee itam da ko jàngal xam-xam wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa qaalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qaala inni a'lamu ma la ta'lamu waaye lu mu ci teg wa 'allama aadama al asmaa kullaha thumma aradahum 'ala al malaika fa qaala anbi'uni bi asmaa haula in kuntum sadiqin qaalu subhanak laa ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al 'alim al hakim kon li tax yàlla yow indi nu fi moo tax nu wóotu ko ci kaw suuf nekk représentant waaye borom barab bi ni mu fonke woon doomu aadama ni mu fonke woon xale kon loolu misaal la ci suufiyanke yi ni ñu fonke nit ngir li tax yàlla indi ko fi mu nekk kuutaayam ci kaw suuf ñaareel ba muy ñu jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni waaye jaamu yàlla itam taarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni xam-xam day daal di duggaat foofu waaye ñu ngi fii ci jàkka joo xam ne Cheikh Saalih moo ko fi tabaxoon alhamdulilah kon loolu lu ko gën a symboliser symbolique wala lu ko gën a firnde ci jaamu yàlla gi nga xam ne mooy ñetteel ñaareelu ponk bi suuf yaa ngi koy wax ne moo nu fi indi mooy boobu ñetteel bi nag mooy nu dundal suuf wallazi anshaakum min al ardi wastaamarakum fii yàlla def noo bind ngir nu dundal suuf dundal suuf nag mooy xéewal yi nga xam ne yàlla def na ko ci kaw suuf ñu mën koo jariñoo ñu mën koo tàggat ba te tàggatal nañu ko ba noppi sax ba doomu aadama mën koo jariñoo huwa allazi saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi wa ma baynahuma huwa lasi saxara lakuma fi l ardi jamian boo ko topp ci alquran yu bari la yàlla dafa noo tàggatal lépp lu nekk ci univers bi yàlla daf ko tàggat ngir doomu aadama mën koo jariñoo ngir mën a accomplir mission boo nga xam ne mooy ñetteelu ponk yi suuf yaa ngi wax ne moo tax borom bi subhanahu wa taala indi na fi kon ñett yooyu yëpp dafay daal di daje ci liggéey bi tax defe naa ne kuy joxe misaal ci liggéey itam mën ngaa joxe misaal ci borom pàkk bu tedd bi muy Cheikh li nga xam ne def na ko ci yar def ko ci jàngale def ko ci liggéey def ko ci fonk doomu adama teral ko loolu mooy li nga xam ne mooy tënk liggéeyub Cheikhul Khadim radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy ahlu tasawuf li nga xam ne xam nañ ne loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala bind bindeef te loolu koo xool ci njabootu Cheikhul Khadim gi radiyallahu anhu moom ngay gis ci moom koo xool ci nga xam ne ñoom la defar ñoom ngay gis ci moom waaye misaal mi gën a jege mi gën a wér gën ko gën nekk barki démb mën nañ ko wax ci Cheikh Salih Mbacké radiyallahu anhu kon xam naa ne du ma guddal ndax waxtaan xaju fi sëriñ euh, Cheikh Makhtar ubbi na dama doon joxe misaal rek ci njariñ loolu yi nga xam ne mooy yar bi nga xam ne mooy daaree Cheikhul Khadim buñ daaree waxee daaree Cheikhul Khadim mooy daare yonente bi sallallahu alayhi wa te mooy système wala mooy modèle éducatif lislaam mooy modèle éducatif bu murit lu ci nekk ñu mën ko wax teg ci suñu loxo ne mu ngi nii mu tollook jamono fu jamono toll nag mu toll fi jàngukaay bii xam ngeen mboolem njabootu sëriñ bi ni ma ko waxee ci lañ nekkoon waaye Cheikh Abdoulaye Lahad moo ko fi bàyyi woon mu toll nii tey tey bu fi nekkutoon doon ko ko bëgg def fu sodee sodee lañ koy def waaye gis nga jóge fi wutu Cheikh Saleh ba ci Cheikh Mahamadul Amin Cheikh Sidil Mokhtar ñoom ku ci nekk def nga ci sa pas pasteef def ci sa yéene Cheikh Mahamadul Muntaxa ñëw ko fii ci Cheikh Mahamadul Fadil dégg naa bi jamono jumaa ji yeggee dafa waxoon ne sëriñ bi fii lañ toll tollale la fi fu nu toll rek ak tollu fa ak yow fu nu àgg itam ci yow kon fii la liggéey bi toll fii la ko mag ñi indi woon lim mën a indi nag Cheikh Mouhamadul Mountakha ci boppam daf bi mu waxtaan ak ñun ci ni mu bëggee liggéey bi daf na koy leeral daf ne dafa bëgg nu génne nit koo xam ne day xam diineem bu wér a wér a wér doon jullit xaqan doon taalibi Serigne Touba bu wér a wér a wér wér waaye doon nit koo xam ne itam day day xam mboolem lu aju ci diine waaye lépp lu jamono laaj day daje ci moom mas nañu jox misaal ci koo xam ne dafay doon imaam joo xam ne moo war a jiite ci jumaa ji tey waaye moo war a opéré ci hôpital Matlaboul Fawzeyni xam na waxtu wa nga xam ne fa la opération bi war a yem mu war a ñëw jiite ci delluwaat foofu wala moo war a mooy ingénieur de conception boo xam ne ci liggéey yi gën a xarañ lay nekk waaye bu waxtu jullee mooy jiite ci fa mu nekk ak njabootam kenn du ci laaj yi diine fenn waaye fu waaye soxlaa diine mën a ñëw ci moom mu xamal la ko waaye nag dañ koy nàmputal suuxat ko ci moom ba mu seey ci moom ba mu dund diine nga xam ne duutu mën a def dara loo xam ne lu lislaam tere la dootu mën a def dara loo xam ne jubawut ak ndigali Cheikhul Khadim te mooy ndigali borom bi subhanahu wa taala loolu nag modèle la boo xam ne àddina bi yëpp ko soxla jàpp naa ne bu taxawee ñëpp danañ ko mën a jëfandikoo waaye istimraar ya la rek mooy li fi Serigne Touba indi woon kon ñu ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yeggale ko ci jàmm te bokki taalibe yëpp mën ko àggale ak moom di delloowaat sunu siyaar ci njabootu borom barab bi di ñaan sunu borom fayal ko di jottali cantu raw du rayaaxin gi nga xam ne wax naa ne moom alala ma waaye rawdu rayaaxin gi nga xam ne itam moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkati liggéeyam bi teg ko ci seen loxo ñu ànd kook bokki taalibe yépp ba yàlla dogal mu toll fii ñu ñaan mu yegg ci jàmm ak salaam di xam ne ne nag ñëpp ko ànd ak moom ni ko waxee woon ñi am xam-xam mën a joxe kenn ku ci ne joxe nga sa xam-xam ba nga am lépp ngir yàlla te nangu woo benn koppar jóge ca ci saayir ñëw ci yow ndax xam nga ne loolu nga doon ñaan mooy foo mën a di Sëriñ Tuubaa ñi yor ay koppar itam te man koo jébbal sëriñ bi lépp xam nañ ne fee leen ko defal ñi nga xam ne am nañ doole mën a ñëw bi seen sasi bopp itam kenn ku nekk ci ñoom ñëw na tobbiw sasam joxe naa ci léegi misaal ci opérateur économique yi nga xam ne ñoom lañ tuddee taliatul muridiya mën naa cee joxe Touba ci euh, misaal ci mbooloom bi ñu tuddee Touba ci kanam mën laa cee joxe misaal ci mbooloom ñuy liggéey ci dëkk bi te sasu fa ay sas ñoom itam mën naa cee joxe misaal ci si yam di Xadi Faal mi nga xam ne bi muy defaraat miir bi ñëpp dañ doon wax naan bi fi nekkoon xëy nag mëne su fee def lu ko lu ko lu ko lu ko kii waaye mbirum Sëriñ Tuubaa moom mel noonu amul tànk yi gannaaw mën naa ci joxe misaal itam ahlu soada nga xam ne ñoom it ay soxna lañ yu sasoo toggukaay yi tudde ko waa ñi maam jaara yi ak mboolem ña nga xam ne ña nga fay def ay yëngutu di ñaan jataay bi yàgg lool sunu borom fayal nu sunu jàmbaar ji ca taas nu ci barkeem asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani